waaw ci xëyu ndaw yi tamit même chose. parce que loolu moo ëpp importance. waaw loolu important. mu si mu ngi si bu baax euh, programme yi fi jaar yëpp bu ci nekk waa Mbour bénéficié wu nañ ci des na nag hmm. mooy. ok mooy dañoo nekk ci euh, dëkk boo xam ne population jeune bi dafa représenter plus de soixante dix pour cent. d'accord dëkk bu mel noonu nag. Hmm. cest à loo daw ci wàllu emploi rek doyul. d'accord moo tax mu def programme bu mujj bi hmm. xëyu ndaw yi. te xëyu ndaw yi bii. Euh, waa mbuur yi incha allah den si bénéficier comme ni si Sénégal yëpp di gis seen d'accord léegi ñu ñu fàttali ne directeur général bu agence euh, de développement municipal la ñuy recevoir tey muy euh, Cheikh Issa Sall euh, dinañu wax nag ci ci agence bi ndax bari na ay programme yoo xam ne ñu ngi ci biir agence bi bokk na ci projet mm. bi nga xam ni mooy xeex wàllu mbënn mi ak mm. coow yi ci am yëpp mm. dinañ ko dinañ ci waxtaan dinañ wax si ci waxu PACASEN nga xam ni itam programme la buy taxawu li nga xam ni moom mooy collectivité locale yi dinañ ci dinañ ci ñëw ñëw ci loolu Cheikh daf ni ma abordé l' affaire Ousmane Sonko laay la laa bëgg a aborder aussi l' affaire El Hadj Oumar Youm mm-hmm. ngeen bokk parti ñu bëri sax jàpp ni départ am du gouvernement ci yow la jóge parce que yaa génn wax ni dafay waxtaan ci biir guddi pour daaneel Macky Sall pour jël jël jël place am nga jàpp ni loolu ci koo xam ne yéen a bokk parti yéen bokk taxawaay yaakaar nga discours bu mel noonu itam bu bu responsable la. Euh, maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. sama mag la c'est un grand responsable de l'Alliance pour la République un grand responsable et le coordonnateur de l'APR de Mbour. d'accord ah, moom mooy mosul mosul Omar mosul convoqué une réunion maa ngi ci télé boo xam ne pour APR départemental la te ñëwuma. te mosuma ñëw mosuma ñëw xëccoo président ah, waaye. dama lay wax ne eh, former gouvernement. prérogative bu kenn dong. la Cheikh li ngay wax wax. c'est le président de Macky yow yow yow yow naka nga mën a taxawee. moom dong non non non Cheikh. naka nga mën a waxee ni musul def réunion wax ni def na réunion di ci di ci di ci di ci di ci di ci euh, di ci manigancé. pour pour pour pour waxuma loolu dama ne xoolal bul ma ne euh, dama ne. Cheikh li ma waxoon man la moom lay waxaat dama ne. waaw. man ku écarte Cheikh Issa waaw parce que buggul ñëw réunion en catimini wala ay réunion nocturne kooku ci affaire la mhm. loolu nag loolu lañ si déggee yéen a ko si dégg mais li nga xam ne moom mooy lu constant mhm. mooy réunion yi ñu doon organiser en tant que coordinateur départemental de l'APR de Mbour mhm. amul benn réunion boo xam ne convoqué nañ ko te ñëw ma deuxièmement mosuma ñëw réunion di xëccoo président damay ñëw toog fi ma doon toog presque place bi euh, la troisièmement former gouvernement. non non Cheikh. lu soo mënoon dindi ne si kon ma dugal sama bopp. non non léegi lan moo changé ci say relation ak El Hadj lan moo ci changé. El no lan moo changé ci seen diggante yow ak Oumar Youm. parce que parce que li ngay wax ni. lii lii lii lii yàggul c'est récent lii nga bëgg a wax suma frère la suma xarit la mais loolu li yàggul. mais li ma lay wax nii. lii ñuy wax nii nga xam ne sa ennemi la woon ba ngeen ngeen ngeen di xeex ci politique. ennemi amul non attends non xaaral en politique moom amul la ennemi ñu waxal baat waxal nga bëgg a ah, xam nga lan mooy problème léegi waxal baat bi nga bëgg a wax adversaire nga bëgg a wax ñun ah? ñëpp ay niveau de Mbour. ok ñu man di ànd si yenn yi. Mhm. man di juumoo ci yeneen yi. Mhm. waaye sur l' essentiel on a toujours été ensemble. Mhm. bi président Macky Sall di ñëw en mille dix neuf di ñëw campagne man ak El Hadj ak Sira Ndiaye si sama oto man si leen yéeg pour dem jëli président Macky Sall waaw 2014 laa la ba tey El Hadj Omar Youm fu mu convoqué réunion maa nga si dama ne la nag ñoo nekk si biir département bi mën nañ di déggoo si yeneen yi di wuumoo si yenn yeneen yi mm-hmm. waaye adversité amu ci ennemi animosité amu ci léegi bi mu te li koy li koy wural mooy bi mu génnee si gouvernement bi. da nga cee kontaan yaa say. non non non non. non da ngeen non non non jamais feetu sax. non jamais jamais. laaj ko non non Cheikh bi mu génnee. man maa jël sama caravane ma dem ba Caajaay ma fekk ko waxtaan ak moom si kanamu ñëpp ma ne ko yow yaay coordonnateur départemental de la l'APR gouvernement ak sélection nationale nag. ñoo yem l'entraîneur wala le président de la république mooy seet ku mu si woo waaye tu restes toujours notre coordonnateur départemental jusqu'à la preuve du contraire dañoo bëgg taxawaay bi nga doon def ci biir département bi nga continuer ñu ñëpp ñu ànd ci ak yow comme ni ñu ci ànd ak yow mm-hmm. man ay gouvernement ku ci nekk ku ci nekkul loolu président Macky Sall moom moo koy lijjanti. commune bi nag kan mooy coordonnateur bi. commune bi euh, dafa jaxasoo nag moom foofu commune bi moom dafa jaxasoo. Euh, moom jaxasoo bi moo tax parfois nga ne yow yaay Amath Tidiane Amath Tidiane Diba. jaxasoo bi moo tax parfois nga koy revendiquer. Amath Tidiane Diba. waaw moo nekkoon coordonnateur. Mhm. communal de l'APR. mas nañ organiser benn assemblée général boo xam ne tous les responsables de l'APR ñoom ñoo ci nekk. à l'unanimité y compris Amath Tidiane Diba. ñu ne Cheikh Issa léegi yow yaay coordonnateur mm-hmm. bagage yi APR mooy tampon yi yooyu demee noonu yooyu yëpp actuellement ñu ngi sama kër mm-hmm. def passation de service ak yëpp waaye APR au niveau de la commune de Mbour mooy parti boo xam ne da ngay xëy rek kenn xëy fële ne moom mooy coordonnateur mm-hmm. mais man yàlla dafa def ay stat ay euh, titre coordonnateur wala yooyu mosuma intéressé man li ma intéressé mooy di liggéey ci terrain bi jege population yi di leen biral lan mooy liggéeyu président Macky di def si seen xol yi président Macky di yaatal njabootu président Macky ak di jàppale président Macky man loolu ak njabootam loolu moom loolu moom mas a intéressé te ci loolu rek laa nekk. <laughs> alors ci loolu nga nekk ñu daal di lay confier aussi ay ay programmes yu bëri daanaka programme yi mënuma ko mu am na ci yoo xam ne sax wax dëgg yàlla xawuma ko waaye yi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku. Hmm. bokk na ci programme bu mel ni projet. bokk na ci programme bu mel ni PACASEN aussi nit ñu di ko dégg. Hmm. Euh, di nga ñu gën a leeralal lan mooy programme yooyu mais man question yi ma ci am d' abord dañ koy tàmbalee ak projet ndax dafa am euh, coow boo xam ne daf ci am. Hmm. bi nawet bi ñëwee dañu dégg le ministre euh, Oumar Gueye depuis février. Hmm. mu wax ni lancé nañu appel d' offre pour ñu xool naka la ñuy mën a def pour génne xaalis pour mën a xeex wàllu mbënd mi depuis février. bu ñu bu ñu toogee ba mois d'août daanaka ci la fonds yi doog a génn est-ce que jàppu ñu ne jafe-jafe yi nga xam ni askan bi ñu ngi koy jànkonteel ci ndox mi am na ci loo xam ni am ngeen ci responsabilité. Euh, au contraire au contraire parce que euh, projet mooy projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique président Macky Sall septembre deux mille euh, douze. si la organisé woon conseil présidentiel tëral projet boobu en même temps que mu tëral projet yu bëri yi mu defoon ci plan décennal bi mhm. ñu koy exécuté 2013 ba 2020 projet boobu jeex mais yeneen projet yi ñu ngi doon dox ci waa plan décennal bi yi mhm. ONAS yoroon wala yi APEX yoroon wala yeneen euh, structure yoroon ñun biñ paree ñu def li ñuy wax rapport d'achèvement buy wax ne projet bi lii ak lii ak lii lañ ci mhm. def lio fii lañ ci toll jeex na si euh, rapport d'achèvement boobu si leen proposé woon nag pour ñu formuler beneen projet muy projet 2 mm-hmm. bi ko président Macky Sall gisee tombeek inondation yi amoon euh, Kër Massar te projet 1 bi taxoon ñu régler presque cent quartiers yu Kër Massar mu desoon quelques quartiers président Macky na léegi nañ gaawantu ñu baral formulation projet bi 2 mm-hmm. bi mais comme formulation projet dafay jël ay temps mm-hmm. dafay jël yàgg mu ne euh, si keesu état bi si deux mille vingt et un bi dinañ si génn moo doon quinze milliards quinze milliards yi waaw loolu loolu mooy phase d'urgence bi mhm. ñu mën a amorcer travaux yi en attendant euh, projet bu mag bi nag di ñëw ñu mën a continuer donc quinze milliards yooyu c'était uniquement pour Kër Massar c'est uniquement pour une partie de Kër Massar une partie de Kër Massar parce que Kër Massar waaw dëkk bu mag la léegi loolu moo tax sax président Macky Sall jël ko def ko département mhm. commune bi ñu def ko ñaari commune parce que léegi Kër Massar ni muy màggee ak ni Touba di màggee ak ni Mbour sama dëkk boobu di màggee presque ñoom ñooyam boo fa jëlee at ak morom ma rek dangay ngay gis dëkk bi parce que day day day double si population wala en tout cas day li ciy yokk dafay bëri moo tax mu ne nañ def phase d'urgence buñ xaar formulation bi nañ continuer liggéey bi si lañ génnee quinze milliards pour phase d'urgence bi waaye su liggéey nag moom dafa am nu muy tëddee mooy da ngay bala ngaa dem di def ay canalisation si biir quartier yooyu ak bassin yi il faut nga utal ndox mi foo koy tuur bala ngaa as ndox mi. waaw mais loolu foo koy tuur fi koy tuur nag mooy mooy nga utal ko exutoire. Mhm. commencé nag di def canalisation yi bassin di yéeg nag jëm ca kaw. mais xam nga loolu doo ko def léegi nag loolu dafa am entreprise yu koy def. waaw bu fekkente ni. Mhm. teelu la dugg xaalis bi teelu la dugg ci loxoy entreprise yi mooy li nga xam ni moom moo am. ci no xam nga administration dañ na l' administration paie après service fait administration. du la du la du la du la du la fay. mais mais du ci mais du ci projet bii de. parce que projet bi dafa am ay avance de démarrage. non waaw avance de démarrage la. oui avance de démarrage ça ne pas dire paiement. waaw waaw. avance de démarrage dañ lay jàppale rek si yow li nga yor sa sa compte bopp ak li la banque bi nga xam ne moo lay accompagner li muy génn. si la état bi tamit di la jox. donc loolu moo tax saye saye par exemple lu toll ci trois mille euh, trois cent onze millions. xaaral xaaral ma duggoon ci loxo xaaral ma àgg rek loolu moo loolu ngay boole pour mën a nag commencer di liggéey. Mhm. loo liggéey ba benn instant nga décompté ko ne man liggéey naa lii nga déposé ñu fay amul benn déconter bu ñu déposé boo xam ne état bi fay ko parce que ni ma xamee man ne lii urgence la pour Kër Massar. noonu la ko ministre yi nga xam ne ñoo ko seq yëpp xamee surtout nag le ministre de l' et des finances moo tax lu fa dem si wàllu projet bi fay nañ ko euh, saye bi ngay wax nii projet am c' était euh, un milliard huit cent mm-hmm. est normal que buy démarrer ñu jox ko avance de démarrage si lañ ko jox avance de démarrage bi trois cent onze millions mu liggéey lu bëri nag curé canalisation yëpp curé bassin yi di gérer en même ah, temps quatre stations de pompage non non non xam nga xam nga lan laa mënta comprendre bu fekkente ni lu normal la lan moo ci war a mën indi coow coow li man lan moo ci war a mën a indi coow ba sayee aussi di ci di ci di ko leeral loolu coow li nu mu ma jaaxale sax man bu ma commencé administration nag deux mille un ba tey maa ngi si haute administration waaye ba ma juddoo ba tey mosuma gis lu mel nii cest à xëy rek gis si journaux yi loo xam ne c'est diamétralement opposé ak ak li nga xam ne moom mu am moo wax la li li journal bi wax wax la li am journal bi nee na saye dañ ko fay un virgule huit milliard te ñaari pompe la indi benn bi paan alors que saye avance de démarrage am la la jot te li mu fournir agum wala li mu liggéey ëpp na milliard mooy premièrement euh, journal bi mu ne Yuanda euh, ki waroon a indi tuyau yu ñuul yu mag yooyu mu ñu koy wax tuyau anaconda mooy dañ koo fay huit cent trente huit millions te livré wul benn mètre tuyau alors que entreprise boobu muy wax livré na cent pour cent wu marché am depuis euh, juin. ba tuyau yooyu moom la sapeur pompier yi yor. moom la moom la ñëpp li nga li ngay wax dafay yomb da nga bëgg yow ñu gëm la weddi li journal bi bind. lan nga mën a wax loo xam ne non attends non. mais li mais li may wax nii dama si biir. boo demee boo demee Kër Massar. non li boo demee Kër Massar. waaw tuyau bu ñuul boo fa gis. pa xam nga ci sa biir wax d'accord nga ni ça jotul un milliard huit cent et mille. mais wa mënu ko jot. parce que loolu contrat la. contrat bi global mooy loolu. waaw léegi nag lu mu fournir. lu mu lu mu décompté déposé ko moom lañ ko mën a fay